asalaamaaleykum mbokk yéen ñu ñu suivre ci seen site internet luttetv.com tey ki ñu jàkkaarloo mooy doomu Dangu mu war a bëre ak Sokh le 25 mars. ginnaaw bi mu bëre ak doomu ak Ramdan yàlla dogal Ramdan daan ko mu war a ñëw rectifié wu dina yomb wala du yomb loolu yëpp moom moo ñuy leeral doomu Dangu ñu ngi lay nuyu waa luttetv.com. waaw auzu billah bismillah inna wali yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sangu-sang yi di ñaanal suñuy ñaari waajur bu baax a baax di waajur bu góor. fi mu nekk gënal ko fii fuuf di ñaanal suma waajur bu jigéen yàlla bàyyi ko fi gudd fan ànd ak wér ba mu fekkee suma njariñ waaw di nuyu waa Tëngéej di nuyu pencub Lebu yëpp waaw di nuyu képp kuy bëggee doomu daama ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. balaa ñoo ñëw ci soq dañu ñëw sa combat bi nga bëre yow ak Ramdan est-ce que mën nga ñu ñëwaatal ci combat boobu. waa combat la boo xam ne comme yeneen combat yi ñu doon bëre la woon rek préparé nañ ko ni ñu ko waroon préparé sérieusement ba ñu ñëwee stade ñëpp xam nañ liggéey nañ te bi ñu ñëwee wane nañu fulla jom fayda yàlla aussi dogal li muy dogal waaw mais xëy na erreur la erreur la si ñun waaw xëy na ñun ñoo bëree noo xam ne amaana du woon du woon noonu quoi xëy na fougue de jeunesse moo ñu jàppoon mais yee nañu lu lu bari suñu carrière waaw combat boo xam ne combat bu ñu fonk woon te képp ku ñu jigéen wala képp ñu xam rek xamoon nga ne combat boobu combat bu ñu fonk la woon trop te liggéeyoon nañ ci liggéey bu méttee métti métti waaw ba tax na liggéey boobu la continuer nii rek instant bi waaw kon da ngay dëggal nit ñi wax ni combat bi tegu ko ci yoon da ngaa xeeboon adversaire bi. non du xeeb parce que bu ma ko xeeboon du ma liggéey li ma war a liggéey kon su ma ko xeeboon su ma ñëwee duñ ñu entraîné naa dama liggéey lu metti maanaam liggéey bu metti bu mu ëpp sax moo taxoon moo wóolu sama bopp parce que li ma doon teg sama yaram gëmoon naa ne su ma ko yebbee combat bi du du du àgg foofu xam nga li ma la wax malheureusement nag ma ñëw xam nga juum daal waaw ma ñëw juum nangu naa ko quoi du xeeb mais. te loolu lañ ma digaloon aussi li ma bëri noonu loolu ma digaloon xëy na def naa ay erreur ci biir combat bi mais li ma bëri noonu loolu rek lañ ma digal. ban erreur nga gis ni def nga ko ba daanu combat boobu. muy damaa song song bu sori. waaw damaa song song bu sori te suufe loolu moom ma ñàkkaloo xëy na suma combat ak ak Ramdan. Mm-hmm. nga war a ñëwaat le 25 mars nga war a jàkkaarloo ak Sokh foo toll ci waajal. non pare nañ pare nañ pare nañ parce que man mbër laa boo xam ne comme ni ma koy waxee rek. su ma amee combat damay entraîné su ma amul combat damay entraîné donc bu ñu amee combat dañuy nekk ci logique bi rek gën a yokk sérieux bi gën a yokk temps de repos bi xam nga ñaan yàlla yàlla suturaal ñu may ñu ndam àndax ñun vingt cinq mars incha allah waaw. est que yaakaar nga ne Sokh adversaire bu yomb la. noonu non làmb ji amul benn adversaire boo xam ne dafay yomb parce que man nga wax day yomb mais su ma jëloon sa an sax damay entraîné yow mii ni ma war a entraîné donc amul combat boo xam ne dafay yomb mais comme moom dafa jógee ci victoire yow nga jógee ci défaite est-ce que nekkul moom moo lay gën a dal moom waa na ma gën a dal xel ci combat bi loolu problème na ma gën a dal xel man loolu jox naa ko naka jël ba jour ci incha allah waaw. gis nañ tamit seen première face à face avant ñuy def tirage bi yow ak Sokh yéen a doon xaw a jotee foofu ñu gis keroog tamit bi ngeen tasee Iba Mar Diop combat Pambay Ndongolo ngeen mel ni xaj ak mu seen ñaar lan moo xew seen diggante. dara dara xewul suñu diggante lu dul ay adversaire lañ. loolu la rek du leneen ay adversaire lañ dañ jël avance jàmbur maak moom ñu war a bëre donc dañu war a def yëfu góor daal loolu la rek mais ba léegi amul kenn koo xam ne jàll nga sa moroom loo xam ne waroo ko wax ci respect lañ ko teg mais aussi ay adversaire lañ waaw dañu war a bëre donc dafa war a metti merci fair play quoi. yéen ñaar metti ngeen ko de dégg naa tamit nga ne ko doo taxaw keroog. non moom moo ne su ma taxawee combat bi du am deux minutes su ma dëggalee sama bopp ma ne ko man du ma taxaw damay ñëw sa kaw. lu làmba ji laaj keroog dañ taxawee combat mu ne su ma taxawee combat bi du am deux minutes dinaa la taxaw may de deux minutes ba xam. ko may deux minutes. damay taxaw deux minutes déglu ko ba xam. dina la déglu deux minutes. moom nee na combat bi moo ko ñor man wax dëgg fa yàlla kalaaf bi moo ko ñor du combat bi. bu taxawee deux minutes ñoom damay dem. loolu adduna xam nañ ko moom moo ñaan deux minutes su ko ñaanal woon man damay yor rek daf yéen a mais dinaa ko may deux minutes su yaakaaree ne combat bi dafay yómb. man bu mu bëree <laughs> loolu laa ko wax. wax nga ma tamit day arrière bu jour ba bu arbitre sifflé mu arrière. non dama xam ne dina arrière xam naa ne day arrière xam moom nee na man dama ma taxaw su ma taxawee combat bi du am deux minutes wër na yàlla dinaa taxaw. billaahi dinaa taxaw. da taxaw di ko xool wala da taxaw daal ci kaw. dama bëggoon dem. mais comme comme moom nee na su ma taxee combat bi du am deux minutes dinaa taxaw di nga déglu waaw. soo taxawee mu taxaw est-ce que combat bi du yàgg parce que gis nañ combat bi pass tamit dafa yàgg trop. man dama doon mbër moo xam ne lu ma wax dama koy def mais dama ko bëgg wax ne moom bokkul ci mbër yooyu manu ko amul sañ-sañ bi te entraînement bi aussi nekkul ci moom. sox ma fekk Salam muy jël muy box moom dafa fas yéene xeex ak yow. non yow soxu sañul xeex ak man nga naan xeex yow mii di interview xam nga ne soxu sañul taxaw di xeex billaahi xam nga loolu adduna yëpp xam nañ ne soxut sañul taxaw di xeex ak man. Ah, xeex da lay jàng instant bii nii. man mbër laa moom moom si jàng xeex la toll. man dama dépassé niveau boobu man dama dépassé ay jàng xeex eh, dépassé naa niveau boobu malgré nag xeex kenn du ko man mais man dépassé naa cadre boobu mu du ñu benn. mën naa am dalaa bëgg a corriger rek moo tax moom muy jàng xeex bi instant bi wallahi taalaahi soxu boo ma takkaloon gan takkal ka gan ñu defal ñu ring dinaa ko dóor ba mu dëpp. te du ma dóor benn ku duñ benn quoi. takku leen kaa waaye da ngeen dugg ci géew foofu moom mën ngeen faa dóorante. moo gën a metti xam waxoon naa la day arrière te dina dina arrière. arrière boobu est-ce que nekkul stratégie rek. mu nekk mu naxari ko dafay arrière loolu du du lu mu mënu dara dafay arrière par force lu ma koy imposer la te da def kon da ngaa wax jour ba yow yaay diriger. non man mbër laa moo xam ne maay diriger su may combat xoolal su may man mbër laa moo xam ne maay diriger su may combat mais si yoon waaw. mais nga war a bëri poids lourd comme soq est ce que wóor na nga diriger combat bi. man du ma lan mooy poids boo duggee 86 kilos jëm kaw poids nga. yeah te man dama wàññi dama wàññi sama poids sax dama wàññi sama poids lu bëri parce que dafa am lu ma bëgg ci combat bi. dafa am lu ma bëgg ci combat bi moo tax ma entraîné loo xam dama entraîné bu jeex billaahi sañu waa kër damay xool sax naan maan yow lan la lan ngay xalaat ma noppi rek. seen waa kër boobu tamit am na lu ma yóbbante ci yow nee ma nee na nga am ak jàmm seen waa koñ bi tudd na ay tur sax dina ngaa jote ak ñoom ndax moom. dama jote ndax kan non non loolu amul. moo jote waa <laughs> ay ci dëgg bi lañ dëgg. man mosuma dégg Sokh di am na ku mu joteel Pikine. moom moo joteeku waa Pikine moom moo moom moo def affaire de défaillant ñun tëngeej lañ dëkk te tëngeej lañuy ndaw ndamoo ci lépp nag. xam nga ragaloo damaa bëgg nga wax ma Sokh kii la joteel Pikine lii la def. waa ñëpp gis nañ barki Demba Ndiaye combat bi fi am gis nañ Père Dégol yi muy wax mag du toog di wax yoo xam ne wéeru ko fenn ñun tëngeej lañ dëkk doon ay doomu lébu dara jaralul ñu jaay suñu ngor te lébu wax naa lébu du wor xam nga nag ñeneen. mais maa waa Tëngéej wallahi azim amuñu benn problème jote ma kenn kenn moom moo jote waa Pikine moom barki dem moo njaay la dem open press jàmbur ñu téye ko duggul lan moo tax dugul waaye yow ñun si dëgg bi lañ dëgg mbër mu daan bëre Pikine da daan dem si open press am barki dem moo njaay laa la wax la dem si open press jàmbur ñu téye ko loolu lan moo ko gën a ñaaw man Tëngéej fu ma neex ma teg sama tànk aw ma fenn sens interdit waa ah, gis naa tamit keroog bi nga ñëw ama neex moo ngi sa ginnaaw mu ngi wax rek moom tamit. kooku su ma su ma su ma mag la suma mag la ba pare suma ma la. wallaay agim amaana tey la nii sax moo tax fekk ko mais du matin au soir ñu ñaa entraînement max mbaru tëngee jëpp. soq am nga looy moytu si moom. lu may moytu si moom. aw ma dara lu may moytu si moom lu may préparé combat di entraîné di am lu may moytu si soxu soxu lan la am lu ma war a moytu xaw ma dara lu may moytu si moom. ku dàq bëri yéen ñaar. soxu le 25 dina leer te am na loo xam ne kenn du ko wax da koy jëf ñi ñu gis ko. kooku doole yéen ñaar. déggoo li ma la xanaa buñ dajantee dinañ xam kan moo dàq bëre dinañ xam kan moo ëpp doole dinañ xam kan moo dàq xeex dinañ xam kan moo ëpp fit. loolu yëpp laaj naa ko ko moom tontu na ma ci. nee na yaa dàq bëre yaa ëpp doole yaa dàq xeex. waaw kon yàlla ma yàlla may ndam loolu rek a fi dese. mais yow damaa bëgg nga dëgg lool am na wala amul. moom moo wax moom bu nangoo bu nangoo loolu kon kañ man amin laa mën a wax. mais xam nga sa bopp yow xam nga sox bëre sox. man mën naa waat ne li nekk si man si làmba nekkul si sox barki Seydina Mohamed si jom xam nga làmb premièrement jom la fit ful la fayda nekkul si sox billaahi nekkul sox. yooyu yëpp nekkul ci sox tam mu ne yéen ñëpp moom ngeen bëgg a daan. te. moom mu ne yéen ñëpp moom moom ngeen bëgg daal moo tax ngeen. ma laaj la nan ngay bëree nit te bëgg ko daan loolu c'est impossible man ñi ma bëreelagul sax laa la wax ñi nekk sama kanam bëgg naa leen daan saxantuma laa ki nga xam ne dañ la jox avance am nga war a bëreef moom donc bëgg nga ko daan loolu ay waxu kii la rek waxu waxu wax la rek. côté mobilisation bi gis nañ ba passé mobiliser nga est-ce que bii mën nañ xaar bu ëpp boobu. non ñun ay nit la ñoo xam nga lu tax ñu indi mbooloo ñi ñëw écurie wala ñii di ñu seetaan ñu ñu ñu ñuy entraîné gis nañ li ñuy daj xam nañu ñun li ñuy def triché wuñu si lamb ji daa bëri mbër yu triché barki Seydina Mohamed daa bëri mbër yoo xam ne liggéeyuñu te ñun ñuy seetaan barki alxuraan xam nañ ne li ñu def dañ ci liggéey bu baax a baax fulla ak fayda ak professionnalisme nag. teg si yoon moo tax saa bu ñu ñëw ñi ñi toppee ñu ndam defet dañu toppoo parce que li ñu def bëgg nañ ko te képp ku ñu gis jox nañ la cër ñun ñi loolu la ñu toppee. moom bi passé maa ngi koy dégga muy wax ay affaire de mobilisation lan lay dee saat sox moom lan lay dee saat. moom kay neen da ngeen ko rusloo sax moom seen première journée. yaa ngi woon esat gis nga li may indi esat gis nga moom combat am li mu indi esat donc loolu damay bàyyi ñu ñu jugé am na loo xam ne man du si du ma si du ma si wax wax ju bari du ma si wax tey man tënkee laa jógee ñoom ñu jógee Pikine wallaahi azim su ma gënoon jigéen Ibamar kon ñu gis lu doy waar xëy na fii moyens yi sax mooy xaw a noonu may xaw a tagga témbe moo tax Tëngéej dafa sori Dakar tuuti mais su ma dëkkoon Pikine kon Fallou dina gis lu doy waar déggo man c'est-à-dire nga mobilisation jaral na ma sama reliquat ma bañ ci jot ma jël lépp jël ko ay ticket may ko su may rakk ak su may supporter ak su may mag ñu ñëw seetaan ma man loolu jaral na ma ko waaw looy wax sox boo amee looy wax sox lan lay doon soxu xam nga instant bi sax liggéey xaajatu fi du ma nekk mu liggéey dama koy ñaanal wér ak tan avant ba jour ji mais dama bëgg rek mu indi fulla fayda jom parce que man bëgguma di bëre combat yoo xam ne ay raayante lay doon day déet man promoteur bu ma fay xaalis dama lay mobiliser mbooloo mu bari indil la deuxième mois mooy bëreel la combat boo xam ne komba amateur lay doon combat boo xam ne ñëpp ay kontaan dañu xam ne ñii naxantewuñu